candidats yi nga xamante ni dañoo jotoon recalé seen candidature ñu waroon dem mottali jiwaat tey nag nekk bis bi nga xamante ni la ñu war a jàllaat fii ci conseil constitutionnel ñu ëpp si ñoom nag gannaaw buñ duggee ba génn mbégte lañ daal di indaale. réussir nañu li nga xamante ni moom moo nekkoon second tour bi validé nañu 47000 parrainages au niveau national. donc loolu dinañ permettre tey jii ñu bokk ci élection yii di ñëw. alhamdulilah rabbil alamin sant le président Idrissa Seck massa wu surtout benn mouvement bi nga xam ni bi ñu amee difficulté dafa taxaw de façon spontanée tudde seen bopp PEPSI muy pas délection élection présidentielle sans le président Idriss Seck. ñu imaginer ñu dem élection ci Sénégal te vraiment Messi bokkul la numéro 30 yàlla def na ko nag Messi bokk na. ñu ëpp si ñoom nag di naqarlu ni nga xamante ni noonu la processus bi daal di tëddee ñuy ñaawlu anam bi nga xamante ni noonu la conseil constitutionnel di doxee ndax liñ bëggoon mooy ñoom ñii di opposition bi ñu jot. lii di fichier électoral bi. moom système la système informatique la dañu ko xam système informatique xam ne day am ay failles donc c'est pas un système parfait donc on tend vers la perfection et je pense que élection yi di ñëw échéance électorale yi di ñëw dinañ ko jël en compte. nous sommes pour le parrainage mais parrainage bi dañ ko war a gën a améliorer bu nit ñi xamee ni lii la ñuy laaj mu leer ku ko mën nga jàll ku ko mënul nga bàyyi. mais il y a un jeu li ci nekk daal lu doy waar la. ak xool bi jeex nag la ñoom daal di génne conseil constitutionnel ndax seen candidat bi di maître El la Diouf moom candidature am dañ ko daal di invalider loole nag doon lu leen métti lool. Euh, li ñu dese pour ñu munoon a jàll euh, bon 700 nag je ne pourrais pas le dire en wolof bon euh, 700 700 parrain la man parrainage bi du ma ko ŋàññ nangu naa ko ba dugg. Euh, ci jeu bi. Ah. du tey laa koy ŋàññ ba ma koy ŋàññ ma ŋàññoon ko euh, ca njëlbeen. contrôle parrainage yi du wéy fële ca conseil constitutionnel nag ñuy xaarandi ba xam ana ñaata ñoo nar a bokk ci yile élection.